Mhm. xale bi daal en tout cas tàggoo na géej géej waaw euh, ba mu demee waaw nee nañu gaal ga ñaar fukk ak juróom-ñeent mhm. ñoo suux dégg nga loolu waaw hmm. ñett ci rëcc eh ba ñu ñëwee nag ba yëgal ko seen waa kër gi yëpp bàyyam na kon diw dee na mhm. alaaji ñu jëndi ndugg hmm. jëndi nag hmm. lal takk baas yi. takk ah ñu ngi koy dëjël di xanaa deewul. Uh-huh. Ah, gaal ga six heures du matin lañ ko mbëkk. ba quatorze heures. maanaam julli fajar ba tisbaar. waaw. Mm-hmm. ñi mënoon a fii ñi mën fii ci boppam. Uh-huh. daanaka ñëpp a dee. Mm-hmm. ñu mëntu ñoo ñi mën fii ci boppam. ñi mën fii nañu fii nañu ba mu jógee dañuy. ba Alxames tuuti dañuy toog waaw lâché quoi. quatorze heures. ba quatorze heures. Uh-huh. ñu mujj dee. waaye daal fañ tër na ko di ko rey. Mhm. ci lañ téléphoné baayam. Mhm. ne ko diw mii ngeen di saraxal ndekete deewul. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. Mhm. mu nekk nag loo xam ne daal xam naa ne lu doy doy waar parce que ñoom defoon nañ seen i statut alaaji door seeni i tàgge xamal réew mi yëpp ne diw dee na. ba ndugg. ndugg nañu ba jënd nag. def nañ lépp. Ah, <laughs> ma daaneel dégg nga loolu alaaj léegi nag baay bi sumeer waaw baay bi la ñuy njëkk a déglu gannaaw gi nag mais c'est confirmé booy bi deewul xale bi wax na alhamdulilahi rabbil alamin mbay taal xuma dégg nga mhm. waaye nañ déglu baay bi bu nuppi wàllu euh, immigration clandestin sama doom jóge fii dem ci ba yàlla dogal mu am ci ay gàllankoor bakkanam mënoon ci des te ñam àndaloon di vingt neuf personnes d'après liñ ma nettali ndax man fekkewu ma vingt personnes yi bi gaal gi claté bato moo leen mbëkk ci seen cinquième jour nee na ñi ngi déparé ndar bon nekk vingt neuf personnes bi ñu demee ba am ay cinq jours ci gaal ci géej gi ci la leen benn bato mbëkk après gaal gi tas bi gaal gi tase après euh, kenn ku nekk seet koy jaar pour raw ñi jàpp ci bant yi ñi jàpp ci bidon yi ñi am gilet yor gilet léegi nag ñuy feey di seet nan la def ba fan la ñuy teer bon ci biir loolu nee na ma mi ngi am ay vers six heures du matin ci lañ am choc bi amee nag bon immédiatement am na ñoo xam ne moom gaal gi dafa këpp ñoom sur le sang la ñu daal di wàcc daal di di am ñoo xam ni dañu commencé di féey moom mu féey jël bidon ak ay bant bon ànd ak trois moromam yëpp quoi mais ñenn ñi dem nañ ba yàgg mënatuñ dem seen condition jeex na ak vague yi encore ñuy diig par benn benn ba mu des trois personnes ay côté quatorze heures ci la leen euh, marine bi marine bi ban marine la marine nationale. marine Nouadhibou. moo leen gis après daal leen jël sauvé leen yóbbu leen no euh, Nouadhibou donc mën naa ni ginnaaw yàlla seen sauvé foofu la ko yàlla jaarale. maintenant balaa affaire bi di am. heure bii tembe la ma woo. moom mi muy jour mardi. bi ma wooyee ne ma maa ngi ndar. ma ne ko looy def ndar. comme quoi day jaay di baana baana di dem ak a ñëw nag. di jaay ay tissus. loolu yàgg nay def di dem ndar dem mbuur dem ay cene ba dëkk village yëpp xam nañ ko. moom day wër di jaay de temps en mu am cinq jour ci àll bi ñëw yi saa mu am quatre ñëw. deux jours ñëw. yi tamit day wàcc am na ay copains yu muy jaayandool Thiès foofu lay fa de temps en temps boo yenn saa yi mu jaar ci kër gi rek ak moto demaat man tam damay jàpp ni rek comme d'habitude noonu moo ko téye mu ni ma maa ngi ndar ma ne ko lay def ndar mu ni ma dama bëgg a tëmb damay dem ci gaal gi ma ne ko bu ci dugg bu ko sa fukki junee xalaat ci saa si dafa fekkoon ma tëdd dama jóg toog ma ne ko bu ko dara jaral léegi nag euh, ma ne ko ban heure ngeen di dem mu ni ma vingt deux ma ne ko may ma maa ngi xool daal ba xam nekk istisba ñu toogaat ba 22h ma woowaat ko nekk jot ko ma ne ko xanaa dañu ne fomm ba ñu non heure bi lañ changé léegi dañuy dem côté une heure matin donc ma ne ko ok. mais na nga xam ni yoonu yoonu mardi ci guddi guddi àllarba la te voyager guddi àllarba dafa bari danger ak jour àllarba sénégalais dafa tàmm ci aadaam day moytu loolu ah, kon da ngeen di waxtaan ngeen bàyyi ba jeudi ngeen dem comme mun leen a ñàkk dem wala samedi lool yëpp maa ngi koy piéger pour bu ma retardalee affaire ba mu xam ni retard na man ma dem def pexe pour récupérer ji ko bon mu ma daal ñun embarqué nañ ba pare fii dañuy dem rek immédiatement ma woo ma ñaan bu nekk gendarmerie peloton bi ma woo ko jox ko numéro bi ma wooyee ne ko daal man sama doom daf ma woo wax ma loo xam ne vraiment touché na ma trop. ma woo capitaine Niane. jox ko numéro capitaine Niane. comme quoi que chef la officier la. Mhm. su jëlee numéro bi peut-être su ko lancé mu dem biir ndar. ñooñu mën nañ def benn recherche. ba képp boy bi. te suñ ko képpee mën nañ jàppale mool bi ñuy àndal ak capitaine yëpp. bon loolu am na. bi mu amee. te Niane ma immédiatement dinaa ko dinaa la yóbbu numéro bi. dinaa ko envoyé ci brigade foofu. bon man tam ok. biñ toogee ba une ma woo boy bi jotatuma ko ma dem nañ ma toogaat bay trois heures du matin ma woowaat ko jotuma ko may def noonu chaque une heure de temps deux heures de temps ma woo ko. Mhm. de temps trois heures de temps ma woote du ma ko jot ma xam ni kon kii génn na réseau bi mu nekk mënatuma jot mais neewoon na ma nag sama sama portable bi du ma ko yóbbu dama koy bàyyi fii ma sama copain yi fii dégg nga boobu moom jox na leen aussi sama numéro par la suite ñu nekk noonu nekk noonu mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi mardi may commencé jot ay coup de fil toog ba mu yàgg sama téléphone sonné ma décroché euh, salaamaaleykum maaleykum salaam yow yaay papaay Cheikh Dieye ma ni waaw ñu ni ma ah moom de gaal gi mu duggoon dafa am problème dafa paan biir géej machine bi daal nee nañ dafa paan ma ni waaw ñu ni waaw ma ah, ma ni man bala may def dara souvent damay woo samay nit laaj leen ma woo kenn laaj ko ne ko waaw man de am na ñu ma woo ma sa doom dafa gaal duggoon dafa am problème ma doon leen laaj lu ci seen xalaat ñu ma laajal waa ji ne moom nan la def ba xam ni gaal gi dafa am problème xam nga li euh, bu paan rek yow nga nekk ci teeru bi gaal ga nekk biir géej déparé ndar ba nee nañ zone Mauritanie la amee problème yow lan moo la ko xamal bon ma laajte noonu ñu ah, en tout cas ñun daal loolu daal lañ lañ dégg foofu lañ mën a yem quoi ñu doxaat ba mu ma ne ma gi daal dafa dafa suux ñi ci nekkoon genn wàll gépp deen nañ te gaal googu ci la Cheikh duggoon mais nag Cheikh daal munuñ laa assuré ndax deena wala deewul en tout cas gisuñu ko daal man leen kon tey deena ànd ak ay nit ñëpp xam ngeen ni dee nañ te yéen yor jur doom yooyu afin ngeen mën a assuré ni seen njaboot googu yéen deena te foofu lañ tëmbee ci seen dëkk kon koy deena loolu koy jarul ay kii yow ki la ki la woowoon kooku lu mu lu mu ci moom lu mu ci xaritu kii la bon euh, moom moo yore portable ci numéro kii la may wooye ah, ci numéro sa doom ji bon ñuy dem noonu dem noonu dem noonu ba mu yàgg ñu ni ma gaal gi daal nee nañ bato moo ko mbëkk mu toj bi mu tasee nag après ñoom ñu bari ci lañ suux quoi mais nee nañ daal am na trois personnes yu rëcc mais trois personnes yooyu nag xamuñ ndax Cheikh a ngi ci wala nekku ci enfin ma leen ah man daal yow ba kañ lañ la wax loolu entre mardi mercredi mardi mercredi wala mercredi daal laa jàpp quoi moo gën a siiw sax bon mais entre mercredi jeudi vendredi daal mayetuñ ma jàmm moom yor yor midi ngoon mais nanguwuma ko wax waa kër gi nag parce que aw ma lu leer lu voilà ñu ni ma daal gaal gi daal nee nañ bato ko mbëkk gaal gi dafa tas bon am na benn gaalu maare bu demoon géej moo ci for benn bant gis matricule yi ak peinture yi nga xam ne xam nañ ni lii waa Guet Ndar ñoo ko moom mu téléphoné foofu waa Ndar ne leen for naa fi daal benn matricule boo xam ni Guet Ndar la jóge enfin Ndar la jógee daal xaw moo Guet Ndar xaw ma mais Ndar la la fii la tëmbee woon seeni borom bon seeni borom fii lañ tëmbee woon booy ci duggoon daal xam nañ ni ñëpp dee nañu bon ñu laaj borom gaal gi nee nañ moom gisul nit quoi gisul kenn ku muy sauvé ay bant rek la gis bon lan moo leen xamal ni nag am na ñett ñu rëcc loola man xawma ñoom rek ñoo ma jox information bi. ñoom ñoo la am na ñett ñoo xam ne. waaw nee ñoom ci téléphone bi lañ ma ne ni nettali nañ leen ne leen. Mhm. am na ñett ñu rëcc ci ñoo xam ni daal ñoom. ci gaal gi marine bi moo leen for bon ma nga teer ña nga teer ak ñoom ci gaal gi marine bi for na leen yóbbu na leen teer ñoom euh, waaxu Nouadhibou wala pooru Nouadhibou donc ñooñ nag xamuñ ndax Cheikh ci la bokk wala bokk ci mais ñoo am nañ ay copains Nouadhibou dinañ leen woo laaj leen ba xam ñan la euh, ay waa Ndar lañu wala ñun suñuy nit lañu wala déet wala Cheikh ci la bokk wala bokk ci hmm. ñooñ laaj ñooñu effectivement ñooñu ne leen am na ñett fi teer mais xam xamuñu leen daal xam nañ ni nag ay wolof lañu ay zone boobu lañu mais xamuñu ñan la. bon yooyu di continuer ba mu yàgg ñu ni ñooñu avion jël na leen fii indi leen Mauritanie bon nee nañ dinañ leen indi daal Bango wala dinañ leen indi Ndar Bango sax lañ ma wax léegi ñun après timis dinañ fa dem seeti leen wala fii ak ngoon waaw dañu ma sa naa ñu ngi leen dem seeti nii ba xam bon ñu dem seeti leen dikkaat loolu mooy loolu démb la démb démb te boobu fekk na ñun nduggi nañu li ñuy saraxalee ba pare ba jënd nag bi ba indi ko ba tër bay waaj a rendi ci la sama téléphone sonné ma ñañ seeti woon kat sa doom ji ci la bokk mi ngi nii di reer dara dalu man leen jox leen ma ko ma wax ak moom ba xam ñu jox ma ko ma wax ak moom xam ni voix bi may dégg sama doom la bon noonu la affaire bi demee après ma door ko kii fekk wax naa ñi ne leen seex moom dee na quoi dëkk bépp ak ñi ko xamoon maanaam tàggee woon nañ ko ba pare ko ci jumaa ji def ko statut ba ñëpp suñu mbokk yëpp jot ci tey jii nii lañ ko waroon a saraxal voilà après fekk ne mani la ñu fodog nag yi ba tër ñii bay waaja a rendi laa la wax bon après gars yi ni ta mani taxaw leen ma wax gars information bi nag après ñëpp kii dafa mujj dafa mel ni <laughs> dañ ko xëpp ndoxu glace ko ñëpp nag fireeku boobu dëkk bi yëpp ngi jooy kenn lekkatul noonu la situation bi demee ma ni ko ndax ñu jël si la ndar mu ni ma noo jaru ko dinaa mën a indi sama bopp man moo indi boppam waaw moom moo indi bopp bi mu ñëw nag guddi na quoi boobu mhm. fekk na ñun sonn nañ nelaw nañ man mhm. dama yeewu ci fajar gi di julli ci kaw nii rek fekk ko ci kaw mu tëdd bon moo xam ni ma xool gis bagage yi ak kab bi mu solo na yi moo xam ni kii cheikh la loolu lañ ci am ñu sant yàlla ah julli ci yeneen bi vraiment gërëm nit ñëpp sant leen defaat beneen statut euh, Soumer Diop hmm. léegi nag alaaji hmm. ndeyu mbill gi ci boppam laa la wax di xale bi. Mm. dina wax Badou. waaw. Mm. xale bi day wax di sant yàlla. waaw la sant yàlla na la sa doom ji. xam nga alaaji. Mm. sant njàngat li ci sama doom ñi mantu laay def tey suba gi. Mm-hmm. ñi cosaanoo ndox xam ndox. Mm-hmm. nekk ci géej gi lu tolloo plus de eh. neuf heures de temps. Mm-hmm. deewuñu. te ñooñu nee na ñoom ñooy nitu ndox yi. gone gi moom dëkk ci ajoor. ñu ne Thiès xamuñu géej sa sangam. yàlla ne ko ku ci nekk sa waxtu wu jotul. doo faatu doo man fee ñàkk bañ a mën. barki yonent bi ah, waaw waaw. la de. yàlla mhm. day teggi rek argument keroog ki fi doon wax naan man mool laa xam naa géej. dinaa ci génn. ma ne ko affaire condition météo yi mooy tax doo ci génn. géej gu sedd guy. ku xam ku xam ndox dëgg di nga xam ne géej kenn du ko mën. allahu akbar allahu akbar géej moom kenn du ko mën. te yàlla gis nga ko namul nga faatu doo gis léeg-léeg nit xaru ba nga dee. waaye doo dee. Hmm. parce que yàlla décidé ne yow. xoolal xoolal vingt neuf personnes. allahu akbar ñett nit rek ñoo ci sauvé ñett. moom nee na dafa sedd moo tax mu sol gilet bi. imagine toi bu sol woon gilet boobu te moom xamul géej. ay waay gilet ñuy wax naan ay man damaa xam ndox. waaw moom kenn du ma xanaa dañoo fàtte yàlla. ndox kenn du ko mën mais ñooñu ñooñu aussi. ñooñu rek moom ñaata la ñu woon. vingt neuf personnes. waaw ñaata ñoo sauvé. ñett ñett moom ak ñaar ñu ne jàppoon ci bouteille comptabiliser waatal boobu comptabiliser waatal boobu ak gaalu démb bi bi bi teel Cap Vert bi tàkk bi. Mhm. cent cinquante ci nekkoon soixante dix ñoo sauvé. Mhm. quatre vingt ñoo dee. waaw comptabiliser lañu. waaw bu jógee naan motul cinq cent motul quatre cent. egg na mu egg mille. mooy yow bu ko ëppul alaaji. waaw mu egg mille. bu ko ëppul. bañ doon balaa may de ñuy posté 480 bi 480 bi mooy hmm. bi ñu doo commencé médiatiser Barza Barza. waaw booba la booba la woon. donc jamono bii nii lii faatu nii chaque jour faatu gi am. ah waaw baax na léegi alaaj hmm. xaaral balaa ñoo dem ci kaw tali bi Birane Ndiaye. nee na carte d'identité moo réer ak permis de conduire diggante Liberté 6 ak Thiès képp koo xam ne gis na ko na woote ci 77 360 52 27 kii moom dafa for fàllu mii la bu ñoo lànk daa for nag euh, benn caabi Liberté 6 mhm. euh, diggante Auchan ba ak euh, rond point JVC boulangerie jaune mhm. waaw acca oto baa ngi nii nag caabi oto bi képp koo xam ne daal réer li nga ko foofu nag Hyundai la depuis vendredi passé la woon daal Euh, waaw kay na nga euh, ñëw fii ci Zik FM wala nga woo ko moom moom moom moom fàllu mi fàllu bu euh, ñoo lanku ñoo bañ. waaw kay nga woo ko ci 77 572 90 95 voilà fàllu doucement rek nag gars yi dañuy jël seen numéro yi ba pare di leen ci nax kii moom ay bagages valise bu ñuul. sac à ak sac à dos sachet bu def nag ay bagages bu bébé ak paquetu couche waaw convoi ñetti taxi. nga xam ne Euh, <laughs> dimanche la woon ah, ah ci benn seet lañ doon dem. laa ilaaha illallah. Ah, euh, taxi nag dañoo rangoon ñu nga jugee woon nag ca booru Lissa Fadia euh, doon dem nag Tivaouane Pël. voilà poste de santé ba borom taxi bi nag bu dee mi ngi dégg daal nañu dimbali rek woo ñu ci 77 539 47 93 Baxaw. waaw kay d' accord kii moom mi ngi tudd Diouf a ñu xabaay Gaye ki Diouf. waaw kay porte-monnaie la réer alaaji bu maron ba rek ma ca jaaxal dégg euh, ñaari carte d'identité permis de conduire ak euh, carte la Wave voilà ticket restaurant képp koo xam ne na gis na ko na woote ci 77 046 50 61 mbay Waré Paye waaw kay mbay Waré pay kii xanaa mbokk nday pay la hmm? sama sama jabar ji sama jabaru euh, frère bi Aye Diop Ndeye Paye Ndeye Paye moom Ndeye Paye ko jant bi tiim a mën a ceeb ah yaay ah, ah, yaay ah. li Njool Jeng doon wax naan ay jabar ji doo nga mën ceeb wallaay Ndeye Faye dalaa ceeb ceebale maa Ndeye Faye ngi noonu de ah moo goroba ay dajam ceeb rek dem ca mm. dégg nga Mbaye Waré Paye waaw kay IPS am ñu riir nag alaaji carte grise DK 33 17 Z dégg nga ni ma koy baarale. ak euh, licence ak assurance ak droit de stationnement ca Yoff. gis naa waaw alaaji gis nga baarale. gis nga baarale. gis naa ko waaw ah, kay il faut que ko baaral nag alaaji xamal ne xel bu dal la. dégg <laughs> nga dañ laa wala xaalis dugg na lii. voilà 76. 289 08 39. day buggaan ngay dani diggéen ñii dikkul ba léegi lii jaaxal sama li léegi buggaan moom temps yi am na lu ko daal hmm. euh, daa ñëw waaw kooku kana alaaji démb hmm. kooku mu démb bi may tëdd hmm. laa doon déglu benn alaaji Ibou Sakho eh. kon kon de am nga leçon boo nee la waale kon de am nga leçon boo nee la moo tax tey damaa biddanti wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan kii kii kana Dominique dem na aywa Pascal de astafurlah mu naan Pascal euh, Chimère kaay ci machine bi <laughs> Pascal Diop. waa loo leen di xaar si saabu bu baax muy setan di bàyyi xet bu neex tey li si yaram waa suñu leen waxoon ni seen saabu mën raw loolu waaw waaw ak savon liquide fraîche yi da ngay set foo toll te ànd ak xet gu neex day dundal sa der te di ko aar bu ne. Crèche am na gamme saabu limon bi di rey xetu yaram ak niinaay lem bi di bàyyi parfum bu neex ak hydratation bu jéggi dayoo menthe bi di rey bépp bactérie waaye am na pêche bi di tey nooyal sa ak saabu ordinaire bi di setal tey raxas bépp salte Crèche yi daal féex set ak bànneex saa su ne yi Stay fresh, stay clean. Uniparco Cosmétique, vivez votre beauté, exprimez votre différence. salaamaaleykum sëñ bi na ngeen def. Eh, lan ngeen di jël. non mais attends xoolal je vais vous proposer jollof chicken. jollof chicken bien sûr. pooji ganaar la yu saf saf yu ñu saaf ba mu ñor. am na ay laaf. moom la ñuy woowee wing chooy <laughs> am na sax kii wu ganaar yi kii ci ganaar ah, ah? Ah, mën nañu ah ok ok ok Jollof Chicken di ginaar bu ñu préparé ci anam bu sell croustillant saf na neex na am non épicé ginaaru EDK bii di Jollof mmh, un bon goût de poulet sénégalais. borom ñàngali la woon. <laughs> non neex na neex na. Jollof Chicken. Eh, <laughs> Jollof le plein de saveurs ak ñoo xam lu baax te di ko def xanaa waa Vitale Vitale ñëwati na dee ak ay xéewalam di leen defal nag ay réduction wàññi ci njëg bi maa la ko wax seen sachet cinq cent grammes ba waaw léegi day ñaari téeméer ak ñeent ko rek lay jar mille deux nga ne maa la ko wax ci fépp nag ci biir réew mi yéen consommateurs yi dem leen gaaw wuti ko ma ne la Vitale day waaw saay boo leen di xëyee mu leen di gën di bégal lekkam am na kaaraange set na neex na yomb na ay butéelu ci Sénégal gii ma ne affaire bi vitale la vitale fils dama jëndal ma liste tuyaux yi ak enjoué ca quincaillerie Alioune wax ko ni matériel yu CCIS rek nga bëgg waa papa lu tax yu CCIS rek <laughs> doom sama bopp nga may fàttali ak sama pap fanweeri at ci ginnaaw ñun plombier yi CCIS lañu taamu ndax qualité am dinañ fa fekk itam xeetu tuyaux yu ñu soxla yépp ci suñu chantier ak forage maa ngi doog a xam lu tax nga taamu matériel CCIS papa maa ngi dem léegi léegi qualité TCCIS mooy defar fii ci Sénégal ay tuyaux PVC PE ak forage produit yu ñu certifié qualité ak environnement CCIS moom le pro yi Vous recherchez une berline, un SUV, un véhicule utilitaire, Souhaitez la bienvenue à Sogafric Sénégal, votre nouveau distributeur automobile. Retrouvez les véhicules des marques Fiat et en vente ou location longue durée. Découvrez également nos équipements de la marque New Holland pour vos projets agricoles et de la marque vos côtés à chaque étape. Rendez-vous sur nos pages Sogafrique Sénégal ou contactez-nous au 33 869 CIS, Council of International Service, cabinet de conseil et d'orientation basé à New Jersey, Paris et Londres, ouvre son premier bureau dans l'Afrique de l'Ouest à Dakar, cité Keur Gorgui. Étudiant ou professionnel et voulez étudier en France, à Londres, au Canada, aux États-Unis, à Dubaï, CIS vous propose une assistance dans toutes vos démarches de demande de préinscription et de visa étudiant. Vous avez la possibilité d'aller étudier à l'étranger gratuitement.

ak Wizall <laughs> coono jeex na ak sa kalpe Wizall Money di mën a sa xaalis te doo sonn benn yoon ak Wizall Money yónneel ak jot sa xaalis fépp ci Sénégal fay say facture ak abonnement lépp te doo si fay dara maa la ko wax ngir jot service yi nag téléchargel gaaw application Wizall Money bi Play Store wala App Store wala nga dem si point de distribution Wizall fépp ci Sénégal Wizall Money seen compte yombal seen àddina Wizall Sénégal mooy distributeur monnaie série S16. d'écran, dot notch, à design monocoque ultra Le s vous permet de posséder le plus beau téléphone mobile. La caméra AI du s vous apportera également une expérience de selfie unique. Maintenant, le s est en vente et du 1 au novembre, achetez un s et vous aurez encore une chance de gagner des millions de francs CFA. La personne la plus chanceuse sera-t-elle vous? Vous aimez les fruits Vous adorerez Minute Maid, la générosité de bons fruits au goût de votre choix. Savourez la générosité fruitée de Minute Maid au goût pomme-mangue, tropical, orange et ananas pour bien démarrer la journée ou comme simple délice rafraîchissant. Le bon goût de Minute Maid est désormais disponible en canette pour seulement CFA. Appréciez la générosité fruitée naturelle de Minute Maid. waaw kay léegi. yàlla kenn. mooy yàlla mooy yàlla. Souleymane Faye Souleymane nee na yàlla mooy yàlla. alaaji Ibu Saaxo nee na bu guddi jotee alaaji ba ñu xëcc bunt yi ba fatu. Mhm. am na malaaka moo xam. wallaahi wala convocation alaaji gendarmerie yi ngi nii. suba huit heures na wuyu. doo nelaw ah, guddi googu sa nelaw jeex. waaw njaaxalee ngoog. mawti gërte tët gërte tët gërte tët fa nga tëdd noonu moo roon la faa fekk rek rocci ruugi borom bi dawal yërmande te loolu yëpp moom la kat xoolal bu ko neexoon daara du ko ci fekk de. Mm. ñaata nit a dee guddi gaal. ñaata nit a baa nga picc sa baaraam. ah mu mu waaw loolu lay wax feebar guddi gi. ñu bandaas ko waaw ñu bandaas ko. nga fanaanoo aw métit. la ilaha illallah. wala nga dem bay tëdd ñu wala nga dem bay tëdd ñu la bàyyi sama yaay kat fekk mooy ab awam sama yaay oto ba mu duggoon ñuy dem ndax accidenté nañu. ñi si nekkoon ñëpp dee nañu ñëpp waa guddi googu yow alaaj fi mu ne nii lan ngay nelaw naqar woowu ne dañu ah! ñett yooyu la yàlla mën na laa teg naqar woo xam ne ak métit woo xam ne wala jaaxle woo xam ne doo nelaw mokk ci guddi gi naqare moom daa dégg nga loolu. jërëjëf yàlla guddi gi maanaam alaaji bis bi vingt quatre heures. vingt quatre heures. wallaahi. soixante dix mille fois alaaji la nit ki di xalaat. waaw dégg nga de. Mhm. soixante dix mille fois mais alaaji kon ngeen xalaat journée bi yëpp dañuy xalaat. Ah, aywa. nee na vingt quatre heures bi suba teel boo yeewoo bala ba tëdd di nelaw. Mm. fukki junni ak juróom-benn. mille fois ngay nooy. seize mille ah, boo wéetee boo deful dara rek xoolal foo toog del wax allah allah allah allah del tudd yàlla rek. Mhm. ndax ak gune mën naa bañ a wàcc. ah waaw waaw. Ah, ah, kenn dafa xam fan lay jëm. kenn xamul kañ la kenn xamul fan la kenn xamul naka la. mën ngaa aj. doo aji. doo aji comme mën ngaa aji doo ajaat. mën nga ne sama xel mën naa mën naa tukki itam du ñëwaat comme xel dina xalaat soixante-dix <laughs> mille fois sama xel mën na mën na ni yaa ci hôtel hôtel ba nga nekkoon ci tugal balaa xel ma dellu si fi nga toog caravane allahu akbar non allahu akbar yàlla allahu akbar te kat yàlla no pédagogue bu doy waar hmm. hakim alaaji allahu akbar allahu akbar dégg nga loolu alaaji yàlla nañ ko yàlla fayal laa ilaaha illallah ñu ngi nuyu bu baax Baye Habib. laa ilaaha illallah xalifaam bi. ah. malaaka yi ñu seet si guddi laa bëgg mu répété waat. <laughs> dafa mel ni am na am na koo xam ne moom a ci gën a sonal ñëpp. non ñett la. kenn ki ñàqare rek. waaw. bu la ko dóoree rek nga fas yéenee fanaanoo fitna. kenn ki métti. papa naam sama ñoom yaay day jotu ñoo yegg Ndar. wala jotu ñoo yegg Kaolack wala Ziguinchor wala ah. Tambacounda. seen oto bi dafa accidenté nee na ña ca nekkoon ñëpp a dee. wallaay. waa guddi googu moom alaaji bàyyi nan lay nelawee moo ko waa kër ga. Ah, mënul ne. wala nga dem ba nga xam ne dara desul dul tëdd ci waajtaay gi boroosu naa lii ak lii dara jóge ci kaw ne tëcc dal sa kaw baaraam ba mbir mi toj. te jàmm jeex. fooy nelawee. fooy nelawee métti métti. bañ yëngal la léeg-léeg ci guddi bul bul lim bëñ pas de bëñ. limal leneen. wuy ma da koo dund. wuy ma wuy ma malaaka bi toog si sa siditu bëñ bi alaaji. Ah. mel ni mel ni lu ci lu ci secreto. wallaahi. di mel ni lu jël ay kirna alaaji di ko di ko duut ci sa siditu bëñ bi cëc cëc cëc mel ni ku jël puso di la ko jëm ci suuf. nga égoïste nag naa lu tax nit ñi nelaw man mënu ma def. da ngay égoïste nit ku bëgg la leen doo bëgg lu liyee nit ñi. waaw fitna googu ah, alaaji. alaaji loolu nooy nelawee. doon fooy nelawee. bañ daal na ma ci suuf ronda dinañ ma génne fajal nelaw de. dégg nga loolu El Hadj. wallaahi. bañ du mbokk. Eh, alaaji bu saaxoo nee na. wala nga ne muy tëdd bas bas bas bas yónnee la ab ab convocation. ab convocation que sax dama ko ci dégg. procureur de la République ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay bas ñu bu baax a baax. <laughs> sëñ Basi wallaahi ñu <laughs> am convocation sa nerf <laughs> procureur wuy ma eh. soit transmis la nag wax ca doole alaaji. Ah. procureur ci boppam moo sant sandar bi ñu woo la. parce que asalaamaaleykum doon na la. même boo tiitul doon la parce que da ngeen mën lu ma def. vingt une heure dem nga ba sangu waaye tay ga neex nga ne tey moom gëmantu gi ma gëmantu moom xam naa ne fu ma ko teg fu ne wuy ma sa avocat yónnee la message ne la Chérif waaye baal man je l'avais complètement oublié dossier bari mais tu as une convocation demain <laughs> à la gendarmerie de Thiong soit transmis la soit transmis procureur la woolu <laughs> nga ne ko xoolal ci ban dossier la mu ne non xamaguma ban la nag mais demain matin tey moom xam naa balaa ngaa dem daa la informé. nga war a nag soo xalaat soo xalaatee soo xamee yow li la fa yóbbu. di nga ne non témoin la wala ah, dossier boobu de moom li ma yor ci ay preuve moom mooy loolu quoi mais alaaji dossier bi ci lan la avocat bi ne la non bàyyi bàyyi ba demee matin en tout cas parquet bi moo ma léegi nii. ak fi réew mi toll ci sos. <laughs> ak fi réew mi ci sos. Eh, da ngay tiit léegi nag léegi nag léegi nag ñetti malaaka yaa ngi nii. xoolal bu nit ñi demee daal ba ci seeni buntu alaaji. Eh? rek ñu tiim nit ñi. alaaji bu saaxoo nee na soxlawuñu armée ya. déedéet demuñ fa. ci ñin daal la ne di wër néeg luy seen liggéey luy seen profession tamit. dégg nga loolu dégg loolu rek. nee na nee na yàlla daawuda yàlla bis nee na ko. Mm-hmm. jàppal ma yii. Mm-hmm. tant que déggoo ne iblis dee na. Mm-hmm. alaaji. bul ma sa beew. <laughs> à tout moment mën na laa sànq. waaw du dee nag. moo sànkoon sa maam aadama génne kook soxnaam sa xawaa mhm. génne leen àjjana indi leen ci coono lii ñuy dund nii tey mhm. waaw ki mën loolu kay alaaji ki fekk aadama àjjana ma ne waaw tant que déggoo samay sàq jeex na mhm. man yàlla sama teraanga ji nag yi ñuy rey koppar gi teraanga yi oto yi rafet yéeg yooyu tant que demoo ba dégg ne man sama teraanga ji jeex na man yàlla alaaji boo tëddee ne lawal danaa ci hmm. sàkk tëdd la ci jox. waaw waaw. déggoo ma de. ndax man jeexal. Ah. yàlla du jeexal de. mukk ci àddina kenn du moom subhaanahu wa taala. te kat métti alaaji bu saaxoo alaaji. <laughs> kenn kenn ku ne am na boo ci ñam. <laughs> waaw nit koo gis ci àdduna am na bu mu si. ñamal na la guddi xanaa déegi guddi gi ñu ñi dundu kay ñoo ñamagul déegi guddi. dé dé alaaj alaaj ñu buñ ko tudd nag <laughs> vraiment bokkul ci suñu affaire. dégg nga loolu alaaj. dégg nga bokkuñu baadu géej gi mu ne daaw de géej gi. teraanga yi ci géej gi. ant nañu ko. géej yàlla daf koo jël def ko ndumbelaan xanaa xamoo géej gi ndumbelaan la. fa la ndumbelaan commencé. waaw mhm. jën yu mag yi. ndumbelaan jën yu ndaw yi la ñuy ci mhm. géej àll la commencé. déggoo ma mhm. jën yi amul kattan yi am kattan ñoom la ñuy añee te ñoom la ñuy reeree. jën yi mag yi El Hadj bu Sakho nee seen tuñ la ñuy jël dóor ci suuf ci ndox mi gëj ndox mu ni bay jën yi ndaw yi yëpp dañ ci àndaale ak yi dugg doomu mu ŋaañ ñu ne siix dugg. <laughs> mu ne gërëb gërëb gërëb gërëb gërëb daal di sàq mi mu ne waat xam nga day nooy mhm. bu nooyee génn ndox mi ne bëf alaaji balla mhm. jën yu tuutee tuutee ya ca la profité ni bu xar ñet génn mhm. dégg de fekk na ñam nañ ci desitu saqami gi ci biir waa alaaji xanaa yàlla moo mën bagage foo mënti nekk mën na laa dundal léegi waaw voilà. foo ne. mu war laa mucc sama doom ji cëm cëm. yaay sama baay billaay ay nga. yaay sama baay. sama doom ji mucc naa barki yërënt bi papa Ndoye lay jàngal pour guddi. alaaj gis nga jën woowu. te jën woowu li jën woowu. may ma ma daaneel alaaj may ma ma daaneel bu ma yàqal waaye yow sama doom papa Ndoye koy jàngal pour guddi. guddi. barki yonent bi fa laa doon dem. mu ko jàngal fa laa doon am xam-xam. mu ko jàngal papa ndoy koy jàngal pour mu ko jàngal dégg nga ma de damaa dem ba naan. waaw maanaam foofu yàlla mi ngi fay wane ne mi ngi wax daaw da naan ko. foo mën a ne. sama wërsëg yu alaaji. waaw mën na la faa fekk. waaw ba ci sax ñu wan na la war laa añee. Hmm. nga añee sax kam iw ki war a añee ne bu xar ñëpp génn. Hmm. mooy jën wa réel rill lay def rill day dóor. ñoo nga ni day waaw day bu dóoree. day dóor jën yi dugg day dóor ndox mi jóg. waaw day àndaale ki jën. waaw yu dikk doomu ak yu tuuti. waaw moom yëpp ren yëpp dugg. moom jën mu mag bi ndox mi jën ya ànd mu sàq mi waaye yu tuuti tuuti du leen mën a sàq mi yu digg doomu yi la. dégg nga loolu alaaj sàq mi googu muy sàq mi nag jën yi ndaw yi ci la ñuy profité ñoom tamit ci yooyu toj lekkaala ca ñam ca ñamaat ca ñam ca ñamaat ca jën wi day jékki-jékki rek nooy waaw daal di buruso. génnaale yu ndaw nga gis nag ndox mi ci boppam laa lay ni daal di génn yu ndaw nañu ba xar ñett dem. waa ji bu saako loolu mooy wane ne fu waay ne se wa dana la fekk loolu la sama doom wax. <laughs> cum. <laughs> cum la ma may papa bi. parce que yéen tamit foogoon naa ne waa ja nekkati ci kii yi rek la yem rek ñu ngi lay jàngal ñu ngi lay jàngal nag dégg nga alaaji acca revenons à nos moutons tamit léegi baay bi baay bi bi mu waxee expliqué fi doom ji jaar moom no yaa ngi lay réew mi de. ña benn réew mi nee na yaa ngi dee Ablaye Diagne xale bi tàggee nañ ko ne dee na. waaw benn ñaar estatu nañu ko. <laughs> defal ko ay bët yu jooy. jëndal ko aw nag. jëndal ko aw nag ñu duggal ko def RIP. ko bindal ko rip déggoo ma de. laay sama sama nijaay ji ñu tàggeewul suñu kon rek laa ragal leen nettali histoire bi <laughs> mosuma ko fee nettali waaye ah daa ko mosu. lépp Samba Kourguel. <laughs> dañ ko tàggee woon. déedéet. nijaay boo tàggee suñ benn grand bu nekk suñ koñ. Oh, oh. lii gaa yi commencé di daa daa <laughs> sant yi daa sob de. suñu benn sœur daa suñu benn gaañu fii nii gaañu. waaw tudd Boussa Mbaye. ay sa saa yi am na de Moussa Mbaye. mu ngi leen Moussa Mbaye. Moussa <laughs> Mbaye réew ma wàcc. bàyyi leen teel a tàgge dégg nga. Samba Koul gi. Alaaji Seydi nit Moussa ba Mousse. commencé bind moo moo Pape Sey jàppoo Samb naan nit ku baaxoon. <laughs> alaaji Moussa Mbaye bindal Moussa Mbaye gaaw ca Facebook am bindal leen ne leen maa ngi dund de dund la Moussa Mbaye ak Moussa ma ne ko lan Moussa Mbaye mu ne ma déggoo yuuxu yi man nag looloo ma jaaxal ma ne ko da nga yuux Moussa Mbaye moom moom moom Samba Korgel da di dëggal naan ma déggoo yuuxu yi ay de Moussa Mbaye la wax boo moytul Samba ñun ñëpp lay rey <laughs> danañu éliminer benn par benn dégg loolu alaaji léegi kii jëndal nañ ko rib defal ko statut jëndal ko nag jëndal koy ndugg ak fi ndugg seere waaw waajal saraxam alaaji ne dee na mbokkam yi tàgge gi jàll na ñu jékki-jékki mu ne bu xëri ñëpp ñëw <laughs> waaw kay waaw kay moom fu mu jógee Espagne wala ci géej gi ah dafa rëcc nee nañ ci ñetti ñi rëcc ci la bokk léegi nag bi mu ñëwee nag moom nag expliqué nañu nag nu mu def moom ba rëcc. moom ñu ko indi. moom egg na Espagne la ah moom dem na ba yegg. ba mu yeggee Mauritanie dafa jëlaat beneen gaal fayaat dem Espagne. fayaat fu mu jëlee woon xaalis waaw mais ñii tamit. feeroon xaalis waaw mais ñii nag. waaw ah, mu ñuy dem du ñu yor tamit nag demu Espagne bi tamit jar na lii. Mhm. léegi <laughs> euh, Sumer. jox ñu booy bi ci boppam dayu bi yàlla rek bu ñu li ma ma dem ci gaal du dara lenn lu dul bëgg dabu leen loo xamante ni xëy na yaakaar nañ ko foofu am ko ñëw teral waajur yeeg dëkkandoo ak mbokk léegi yow euh, ba ngay dem di dem ci gaal lan nga def loo loo liggéey ba nga dajale xaalis ak ñaata nga dajale woon dem ak ñan ñoo gunge ñan wax ne ñu boo fa demee di nga mën a dugg ci gaal yi. Euh, jaay tissu laay def ginnaaw bi ma jugee ci événement may jaay màggal ginnaaw bi may jaay màggal jaay gàmm gi boole natt yi may dajale ak sama compte yi may ubbi woon li ma jotoon dajale te bokkut ak marchandise mi maa ngi dajale woon lu toll ak trois cent cinquante mille yàlla dogal bi fi jógee dégg samay xarit woo may nekk ndar fekk daan nañ ànd di dem géej ginnaaw bi biñ demee bi ma wooyee ma dem ma demee ñu ne ma gaal gi mooy dem diw ak ñooy dem ma ne ah on naa ci jéem a wasloo rek dem. ñaata lañ doon laaj ci personne bu nekk. personne bu nekk euh, deux cent cinquante mille lañ doon laaj. pour dem fan. pour dem Espagne. waaw yàlla bu ñu dogalee ñu joxe loolu ba pare. ñu jàpp pour dem mardi. à vers neuf heures dix heures ci guddi. ñu xoolee xam ne euh, garde yi ñu ngi monté il faut mu dix heures def ko ay une heure guddi ñu départ. ñaata ngeen woon. vingt neuf personnes lañ. vingt neuf personnes vingt neuf personnes yooyu yëpp xamoo fi ñu dëkk ñoom ku ci nekk dëkk bi nga jógee. Ah, am na ci ñoo xam ne xam naa ni exact ndar lañ dëkk soor quartier bu ñu naan soor euh, mais am na ci ñoo xam ne ma fuñ dëkk xaw ma fuñ dëkk yow amoo ci ñenn ñoo xam ne dëkkoon nañu Thiès wala yow kese yaa dëkkoon Thiès man rek maa ci xam sama bopp ci xam ni man mi Thiès laa dëkk mais am na ci ñoo xam ma na xaw ma fuñ dëkk waaw ñëpp ay jeunes lañ comme say waaw ñi mhm, am nañu am soxna am nañu am soxna mhm. léegi ba ngeen jógee foofu ay ay une heure du matin mhm. euh, lan lan ngeen yóbbu woon da ngeen dajale woon ay bagages yoo xam ne ngeen mën a. dundee ko ci. waaw yab bi ñu yabee biron essence yi soixante yi yab essence bu doy yab ndox yab dund gu doy ceeb ak ay mbiskit ak lépp yàlla bi ñu déparé di daw daw daw daw ay cinq quatre jours cinq jours cinquième jour bi ci fajar six heures. Mhm. avant muy leer ci la ñu bato boobu mbëkk tanker yu mag yi. ci la bato fan la wala ne woon bato bi exactement xàmme ko ndax booba leeragul ci la ñu laal. ñu mhm. dóoree gaal gi nag fekk booba am na ñu doon nelaw ci biir gaal bi. Mhm. ñaar ñi ñett ñi nga xam ne ñoo sauvé ji ñaar ñi dañ doon jaaru man maa féete woon ci boor bi mais damaa jugoon doon sol gilet ndax sedd bi pour protéger ma mais bi mu gaal gi nag nga xam ne mu ngi fekk gars yi ci nelaw hmm. gaay daw dañ sóoboo ndog bi soobu mii dañoo dem direct daal di dig ci suuf ñaar ñee ñi doon jaaru jàppandu ci biron man moom maa ngi sol sama gilet gilet nga sol ah. waaw di tenir ci ndox léegi ba nga solee gilet ñoom ñaar ñooñu nga xam ne ñoom it ñoo jàppandu ci gutt yi yéen a ànd na teer wala yéen ñal moo leen sauvé dañoo feey am na ñeneen ñoo xam ne sol ñoon gilet mais mën nañoo feey dañoo feey di feey ba mujj gi mënatuñoo feey yàlla dogal ñu dig li ñu gën a dimbali euh, dañoo fay lu xaw a yàgg diggante six heures ba deux heures de ci suba. six heures du matin ba quatorze heures. ci bëccëg. Mhm. ñu koy fay. Mhm. bi yàlla dogalee loolu it ba xam ne ku nekk ñàkk nga sa bopp yaakaar. ñu ñeer biron yeeg ñun ñëpp amuñ fenn fuñ tar ndax ñu ngi woon ci biir géej trois cent cinquante kilomètres. te xamoo leen fan ngeen mën a waaw te amuñ fenn fuñ mën hmm. te goppe nañ trop géej après ci la marine bi di daw ñuy seen affaire bi muy dóor ndox mi di jóg ñu xam ne lii kat lenn bato la wala marine bi wala mu doon gaal gu mag. Hmm. ci la daw ba daanaka dañ dañoo bëggoon a war sax mais ci ba mu xoolee xam ne lii ay nit la. Hmm. la ñu. sauvé. taxaw sànni ñuy buum xëcc ñu ñu yéeg. ban mari ban marine la. marine Nouadhibou la. Nouadhibou la. Mhm. léegi ñoom ñoo leen jël yóbbu leen Nouadhibou. waaw moo ñu jël yóbbu ñu Nouadhibou. léegi ba ngeen demee Nouadhibou lu ñu leen wax. dañoo wàccee ci port bi laaj ñu suñu carte te ñu wane ko après ñu téye ñu foofu jox ñu ñu lekk. Mhm. ñi xawoon a crampe mu. takkal leen ay chauffage am nañu appareil chauffage yoo xamante ne buñ la ko monté solo sedd bi nekk ci yow degré bi dina xaw wàññeeku ndax côté boobu dafa faral di sedd lu bari bi ñu bàyyee noonu ba ñaar ñeet am nañ seen kër mbokk ñu dem mais man it dama fippuwaat pour dem continuer pour bëgg duggaat ci gaal yi bi ma duggaatee ci gaal yi gisaat gaal bi dem quatre-vingt yi nga xam ne moom laa réservé ma wecceeku ko mhm. bi ma ko wecceekoo ci la passage bi ma ko wecceekoo ay cinquante-quatre mille a yéen ma ko weccee ko ci la passaat continuer pour dem. yow ba ngay continuer pour dem ban da ngaa duggaatoon bato. wala gaal laa duggaatoon. a nga a googu nga la jógee. gaal googu noo dibu la départ moom it. moom it amoon na ay sénégalais yu newoon ci gaal. amoon na ay sénégalais am na ay mhm. léegi ba nga ci gaal gi ba àgg. léegi ngeen àgg ngeen dem fan. Espagne ngeen àggoon ngeen Espagne. jot nañu àgg bi ñu àggee ba point central ci lañu marino espagnol taf yëpp ñu yóbbu ñu ci croix rouge bi ñu wàccee wàccee ñu faj ñu traité ñu jox ñu ay yére ba lii ma sol nii ñoom ñoo ma ko jox yàlla dogalit deux jours lañ ko def trois jours ñu woo ñu ni ñu dañ leen di retourner retourner léegi euh, yéen ñooñu fan nekkoon ci gaal bi nga mujjee dugg ñaata personne lañu woon gaal ko bari nañ trop mais nombre moom mënuma la ko boo doon xayma ci mm. après ay ñaata mat nañ cinquante personnes ay cinquante mm. léegi ñu jëlee leen foofu Espagne lan moo leen jëlee Espagne ba ngeen ba ngeen demee ba ñu bëgg dellu si Espagne bi ñu signé ni ñun ñi mujjee ñëw nii dañuy retourné ndax amatuñ fi ñu nekk mhm. te ñu ngi doon dégg ay information yoo xamante ni fii la jógee dem euh, foofu ni bépp sénégalais boo xamante ni dem na dinañ ko retourné ba ci ñi amul woon kayit yàggu sax dañ leen retourné mhm. ñun ci la ñu jëlal vol ay vingt personnes mhm. ñu ñëw indi ñu sànni ñu Nouakchott Nouakchott bu ñu wàccee Nouakchott après ci la ñu seen oto ñi nga xamante ni seen police yi police naar yi ñu indi ñu ba Rosso Sénégal ñu indee ba Rosso ñu jéggi après ci la ñu yabaat ci oto indi ñu ba Dakar Bango. Bango. waaw ñu yóbbu leen Dakar Bango. ñu yóbbu leen yóbbee Dakar euh, ay police Sénégal yi ñoo ñu accueillir. ñoo leen jël ñoom ñoo ñu jël dañu garda seen mbokk jël si leen. Mhm. ñii ñu nit bi ñëwee dañoo bàyyi wax dëgg yàlla am ku ma jël si koo xamante ni mooy sama xarit bi doon jokkoo ak samay parents. Mhm. ñoo ma jël si. yow comme ni est yow sa xel nekkaat na ci delluwaat. ak lan moo tax nga bëgg a bu nekk sa xel nekkaan na. Euh, bu fekkee sama xel nekkaan na ci dellu it ñaanatuma yàlla jaar ci yoonu ndox mi. Hmm. waaw parce que gis nga ci difficulté yi am bari nay bari nay coono donte yàlla musal na la ba nga àggit du hmm. yomb nga gaaw am këyit pour liggéey ci biir dëkk bi. ñaata at nga am. man 97 la maa ngi am 23 ans. 23 ans. Hmm. looy wax xale yi nga xam ne ñoom seen dañoo nekkaat ci nekk ci bëgg a dem. Ah. am ci loo jàpp fii daal bi avant liñ a digal daal nga toog boo amee mooy góorgóorlu fii boo mënee jaar ci kaw nga demit ndax it au moins que fële nu mu mënti mel moo xaw a tane fii tuuti. jërëjëf kàddu yu mujj. di sant ñëpp di sant tey li ma fekkee nii nga xam ne waa dëkk bi defal nañ ñu ko di leen sant ñoom ñëpp suñu papa yeeg ñëpp ñu ngi leen di jéggalu di leen masawit it ndax it saraxaloon nañu ba pare te ñi demit gënuñu leen. sa yaay ba mu la lu mu la. sama yaay bi gisee jooy na kontaan na macha ah, ñëpp ñëpp dëkk bi beeg dëkkandoo ji ñëpp yàlla xam na. cay waay jële yal yàlla doole sutura amiin amiin amiin amiin yaa li koy indi lañ war a di xool li koy indi ah. li sa sa wax fanweeri at ak ñaar alaaji mhm. nga nekk sa kër ndey ak sa kër baay ñu yor la déggoo ma de mhm. mënoo ci ñoom dara du sox dogg ak mburu ñu jur la fa néew dugal la néegu góor mhm. jàngal la lekkool dégg nga nga màgg tekki yor say lijaa sa teg sa ñu naan ma ak ñaari master ci nàngam am na licence ci nàngam nga toog ni di leen xool c'est révoltant kim tànn kéemtaan la. du raison du excuse ngir ñuy jël gaal yi mais de xam naa ne daal yal na yàlla dolli sutura. yal na yàlla dolli sutura daal. yal na yàlla dolli sutura rek. nga def effort bi ba egg ñu ñëwaat ba Mauritanie tegaat la fa. Mauritanie ñëwaat ba Rosso Sénégal tegaat la fa. moo loolu tamit métti na. effort na parce que tamit Espagne ñoom neen seen camp yi dafa fees mënatuñu dalal benn migrant. donte am na ONG yoo xam ne ñu ci Afrique ñu ngi naqar loolu le fait que ñuy déporter migrants di leen indiwaat Afrique donc neen nañ loolu du yoon mais nag ñoom nee nañ amatuñu fu ñu def benn migrant. amatuñu ko de. na amatuñu fu ñu def benn migrant moo tax ñuy obligé ku ñëw ba egsi tamit dañu lay dugalaat seen oto yi ba Mauritanie ñu teg la fa retourné waat ñoom Espagne. ci yàlla. Hmm. loolu boo rëccee la. kii de yàlla bëgg na ko. nga effort yi ngay def yëpp pour dem nga dem ba egg ñu andiwaat la tamit.